ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp te di leen siyaara te di leen ndokkeel rawatina ci weeru tedd wi ñu nekk muy weeru rajab di am mbégte bu baax a baax ci seen jataay bi nga xam ne eh, ñu ngi koy ànd ak yéen muy émission bi ñuy tuddee gàggantiku te mu Muxaddamatul Xidma di ko def ci weer wu nekk ñaari yoon muy le 9 ak le 23. muy jaar ci seen seen CMT TV wala MKTV muy Muxaddamatul Xidma TV ñu ciy dalal ay boroomi xam-xam euh, yoo xam ne dañ ciy ànd ak ñoom euh, kiñ ci gën a ràññee di Serigne Mbacké Abdourahmane te jii moo tax ñëwaat nañ fii ci Daaru Salaam Ndaam ngir euh, àndaat ak moom ci jataayu xam-xam bi ngir mbokki jullit yi nga xam ne dañuy am lu ñu yittewoo ci seen diine ngir ñu leen ci gàggante émission bi nag li ko tax a jóg mooy dañuy indi ay ay ay thèmes yu ñu gàggantikoo ci wàllu nit ki ci diineem lu koy yéwénal ak dunduk àddinaam ci mbir yi nga xam ne lislaam sant na ko ko mu war koo jëfe ak yi nga xam ne tere na ko ko waaye nag léeg-léeg ci biir émission yooyu dafay am ay laaj yu bëri yuy ñëw yoo xam ne bokk yi dañ koy laaj léeg-léeg su baree dañuy tontu laaj yi kon émission bi ñuy bi ñuy bi ñuy def tamit yi ñuy def tey ci tontu laaj yi lay lay aju Euh, mu mel ne xaw naa retard tuuti ndax le 9 la waroon a jàll waaye xam ngeen ne jamono jii jàngukaay bu mag bii di université Cheikh Ahmadul Khadim euh, dañ cee nekkoon di ko ubbi te sunu kilifa gii ñuy àndal jataay bi bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi kon jot sax amut fi mu ne waaye ngir bëgg bokki taalibe yi jareñu rek mooy tax ñi ngi sant it bu baaxit it nag euh, sunu bokk yi nga xam ne ñooñu fi wuutu woon ci weer yi jàll muy Abdul Xaadir Bousso Alaaji Seex ak euh, Serigne Thierno Mbakke ci ñaari émission yi fekkoon ñu génn nekk ci ab tukki ñi ngi nuyu mbokk yi nga xam ne euh, ci réew yi nga xam ne jaaroon nañ ci tamit fu mel ni Angleterre France Espagne euh, ak bokk yëpp di leen siyaar kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaara di nuyu sëñ Abdou Khadir Bousso ak ñi ñu àndal di bàyyi sëriñ Bousso ak Mouhamed Ngom sëriñ bi jox la kàddu gi nga nuyoo. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay delloo nuyoo di la ziyaare itam di nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel jataay bi di gàggantiku ni nga ko waxee di ziyaare bu baax mbokki waa daairatu muqaddamatul xidma ci njiit la sëriñ al imam sëriñ Afiya Buso waaye di siyaare ko ndokkeel Mawlana Cheikh Mouhamadul Mountakha ci nu ko waxee liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la naaloon te suñu borom dogal am liggéey bu ci sotti ba war koo tàmbali ñaan suñu borom bu fekkee lu bare bare bare ci la fay jóge ci ay meññeet di siyaare mbokk jullit yëpp di ndokkeel mboole mbokk yi nga xam ne jataay bi yitteel na leen di ñaan yàlla yàlla jariñu ci ñun ñëpp jërëjëf sëriñ bi loolu moom moom bëri na lool ci mbokk yi rawatina ci bitim réew ci fu ne ngay jot ay message yoo xam ne ay sant ak ay ñaan ci jariñoo goo xam ne ñu ngi koy jariñu ci jataay bi eh, di ñaan suñu borom mu gën laa defal gudd fan ak wér su ko defee kon sëriñ bi ñu ñëw ci laaj yi suñu laaj bu njëkk kii dafay laaj ci ne eh, ñaari mbir la bëgg nga leeral ko ko ci mbir yi ànd liggéey maanaam naka la ay jullit di ànd di liggéey ci wàllu mbay ak tamit suñu àndee liggéey ba am dara maanaam maanaam nan lañ koy génnee asaka jërëjëf sëñ Abdou Lahad ci wàllu mbay am na ñaari anami liggéeyin benn bi musaaqaat lañ koy tudde mooy nit ki am ab tool na nit ngir muy féetewoo liggéey bi ay moom moom tool bi moom la ci nekk mën naa doon ay garab mën naa doon yeneen mooy suuxat la ca war ci ànd ak suuxat gaag bayaat yenn yaag lu laaj defaraat yépp mu di ko defar hmm. bu ñoree ñu séddoo ko ci nañ ci déggoo ñu hmm. ko nangam pour sànga bu ci la ci am loolu lu lislaam daganal la bu dee lu mel noonu moom buñ ko liggéey ba mu ñor ki moom tool bi mooy génne asaka ji bu fekkee ne tool bi mat na nisaab dañ koy génne asaka dooru seddoo ci niñ ko waxante woon mm-hmm. bu fekkee nag ne tool bi matul nisaab te borom tool bi am meneen mbay mu bokk ak moom mm-hmm. moo xam ne su leen boolee mat nisaab da koy boole génne ko asaka yi su ko defee nag la ci des moo ki doon doon loo ñu bokk seddoo ci nañ ci juboo bi jëles li ñuy tuddee musaara moom day mel ne bokk ku ne am joxe dara ci jiw ñu bokk wut suuf bokk di fa liggéey wala kenn ki féetewoo liggéey bi kenn ki féetewoo yeneen yi anam googu it beneen xeetu jëflante la anam googu nag xeetu société la moom suñ ci bokkee bay ba mu ñor bu ñu séddoo ku am nisaab asaka war na ko ku amul nisaab nag asaka waru ko ñaari xeeti jëflante yooyu daal mooy yi gën a siiw ñu xam ci mbay yoo xam ne yu tegu ci yoon la yu lislaam nangu yooyu la ñuy tuddee musaaqaat wala ñuy tuddee musaara ki moom tool bi daal mooy génn asaka ji bu dee musaaqaat ki moom tool bi mooy génn asaka ji bu dee musaarax nag luñ bokk la dañuy séddoo ko am nisaab saab génne asaka xam ne borom tool bu fekkee séddal nañ kenn ku ne dañuy xool ndax mën na nisaab wala matul nisaab tool bi ci wax man naa mën nisaab waaye ñu ko bokk buñ ko séddoo kenn du am nisaab asaka warut kenn hmm. bu dee musaaqaat nag asaka day war borom tool bi musaaqaat mooy lan ci ci wolof musaaqaat moom mooy eh, li ma njëkk a wax nga xam ne tool yi mu nit ki moom moom tool bi moo def li ci dëkk moo ci def yow daal laa andi ngir ngay liggéey mhm. yaay suuxat yaay defaraat yaay bayaat yaay def yi ci aju yëpp ba tool bi ñor mhm. bu dee musaara nag damay joxe jiw nga joxe jiw wala nga indi machine ak ay machine ak yooyu wala wala ki indi machine ki yor liggéey bi ñu mhm. suuf si wala yu mel noonu boobu moom dañuy bay ba noppi séddoo kenn ku ne sa wàll boo amee lu mën ne sab aska war bu dee musaaxaan nag man maa moom tool bi maa ci def samay garab maa ci def sama yëpp yow woo la ngir liggéey su ne nag suñ ñoree ma jox la nangam pour cent yi day bu ñu tool bu ñoree euh, dañuy xool ndax man na nisaab bu ko matee ñu génnee ko asaka ba noppi dooro séddoo ci nañ ko waxante woon wala matul nisaab waaye moom borom tool bi am na beneen tool boo xam ne xëy na keneen la ko jox waaye dañuy boole ñaar yi moom daal ren lim bay daal ci mbayam mii lim ci am lépp su ko boolee mën nisaab waaye lim ci féetale woon liggéeykat bi moom matul nisaab waaye da koy booleeg bële kon moom ci turam lañ koy asakal wala ñu dooru sédd la ñu des bu dee bële nag dañuy sédd ba tool bi ci boppam mën naa man mën nisaab te asaka du kenn ndax dañ ko bokk te kenn ku nekk sa wàll day man mat nisaab asaka door laa war jërëjëf sëriñ bi laaj boobu leer na euh, mbokk bi dafay laaj ne ndax dana daggan ci jullit bi muy jëfandikoo xeeti matières yi nga xam ne lu aju ci wàllu diw diw goo xam ne daf koy def ci yaramam walla kawaram te xamut Euh, li nga xam ne moom lañ ko composé diw yooyu maanaam moom lañ ko defaree xamul ba xam laab na wala laabut. waaw xam nga ci euh, disul dañuy wax ne mbir yi. Mhm. li ciy cosaan mooy ak laab mooy cosaan. fii daa andi firnde luy wane ne lii laabut. Mhm. door ko bàyyi. Mhm. kon mbir yi dagan. moo ci cosaan. maanaam sañis naa jëfandikoo yëpp ndax wa saxara lakum maa fi samawati wa maa fi l-ardi jamii'an minhu loolu mooy cosaanu mbir yëpp day jàpp ne yu laab lañ. lu dul dalil ñëw na ne lii nag la laa dogal moom kon na jàpp ne yooyu lu dul dañoo gis ne def nañ ci ne liñ ko liggéeyee kat nangamaan kit nangam yooyu di sobe su boobaa nag suñ ko jëfandikoo waaye nag ab jullit dañ ko wax ne ko daaw maa yari maa yari bu ko ilaa maa laa yari sàkk naan baax naag baaxul nag dalul sam xel bàyyi moo gën waaye daal ngir ñu tere la ko day fekk nga am dalil ci ne lii kat sobe la kon wari su ko jëfandikoo mm-hmm. waaye bu dul loolu nag dañuy jàpp ne ay gàncax la ay yuñ dajale yoo xam ne matière yu ñu génnee ci suuf la kon lu laab la fil asli cosaan loolu ci dañuy des ba ba ñuy am luy firnde juy wax ne lii nag laa bu ñu doon ko bàyyi. leer na hmm. diw yaram gi daal ak ak diwu ka diwu kawar. waaw maanaam da ci ne cosaan li lu laab la rek. ba ba ngay am waaw firnde ci ne lii kat liñ ko defaree matière sànga moo ci matière boobu sobe la souvent nag suñu ko jëfandikoo. Hmm. jërëjëf kii dafay laaj day sàkku nga firil ko aaya bi. wala nga wax ko maanaam mi ma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma isin lillah waaw bis boobu de suñu borom bis penc la ciy wax hmm. bis penc lay wax ginnaaw bu mu waxee ne nit ñu baax ñi ci xéewal la ñu nekk kàccoor yi nekk ci sawara sawar woowu nag moom lañuy jaaro ñoom te it dañ cee dëkk ci la wax nag ndax xam nga lan mooy bisu bisu bis yow mu déen yow mu bis bi yàlla di fay jaam ñi seen i jëf mooy ban mu ne mooy bis bi nga xam ne nit mënalu fa nit dara ci lu dul ndigalu yàlla mbir yëpp yëpp yow bu keroogee ci loxo ci yàlla loxo yàlla nekk maanaam kenn du ko xëcc moom dëgg fii ci àdduna sax xaw borom xaw dañuy wax ne lépp ci loxo yàlla la nekk yàlla moom lépp waaye ay nit a ngi koy jéem a xëcc moom kenn ku ne am looy moom di wane am daf sa bopp kilifa wala nga def sa bopp buur lu na nga jàpp ne yaa moom sañ-sañ bu na nga jàpp ne sañ ko yowmal xiyaam nag amul kenn ko fi jéem a xëcc yàlla suñu borom ñëpp dañ naa ne dégg yem ci loxo wala mru yow ma idin lillah bu keroogee moom borom bi na fu wax ne li mu nil mul ko kenn du addu moom mooy addu war ne lillahi alwaahid alqahar kon mm-hmm. bis benc bisu suñu borom ku fa am teraanga yàlla la koy jox euh, kenn mën lu fa kenn dara lu dul ci ndégul yàlla mm-hmm. yàlla nag ki baaxam ay jaamu yu gërëm dana leen jox ndigal terale leen ñu ram mu seeni mu rami jàmm waaye loolu nag ci ndigalu yàlla ci yàlla amee. Mhm. moo tax kon lu fay xew rek yàllaa ciy joxe ndigal mu doon sotti. Mhm. moo tax laa tamliku nafsun li nafsin shay'an. Mhm. lu am solo la ndax xam naa ne am na ñoo xam ne dañ ciy jublu ci ci nii rek ëllëg kenn mënalul kenn dara. waaye ni ko waxee nii lu am solo la. daa war a leer ne. sunu borom mi bind jaam ñi moo bind ne ràmm mu am na. ñëw na ci xadis yu wér ne sunu borom dana ràmmuloo malaaka yi ràmmuloo yonent yi ràmmuloo nit ñu baax ñi. moom ci boppam subhaanahu wa taala bu noppee dana wax ne sama jàmm duñu ma gën a baax dañ leen sëq ci sawara ñett yoon yóbbu àjjana ñoo xam ne mosuñu defal yàlla lu baax waaye nag ay jullit lañ woon xëy mat am solo bàyyi xel foofu muy ab jullit lañ mën a ram bu dëng dafi bàkkaar tooñ ba tax yóbbu ko sawara ku baax wala wala euh, mbokk mu baax wala kilifa bu baax man na koo ram ndax dañuy wax ne yomal xiyaam suñu borom ñi muy dugal àjjana du bëgg ñu am leen looy naqari te am na ñoo xam ne bu duggee àjjana am nañ seen nit ñoo wax ne wala seeni i mbokk wala seen i xarit buñ dugul àjjana day mel ne àjjana du neex ci ñoom mm. yàlla dañuy tere la ñu ràmm ñooñu waaye nag ki ndégalu yàlla lay mm. jërëjëf sëriñ bi kii dafay laaj mu ne yan euh, euh, yi nga xam ne euh, ay saare alxuraan yi nga xam ne booy naafila da koy yalu ak yi nga xam ne da koy béral la bëggoon yan naafila la ñuy yaloo ak yan naafila la ñuy bérale la bëggoon nga nga laabire ko ci waaw ci tënk de ci masab Maalik dañuy wax ne gépp la goo xam ne naafila guddi la hmm. guddi nag mi ngi tàmbalee bu jant fi sooyee kon bu ñu sëmale timis ba ba ñu nodd noddoog fajar hmm. naafila guñ fi def nga ñëw sopp ñu béral ko donte béral nag mën naa leeral ne dafa am ay darajaat hmm. bi gën a suufi gën a jege mooy ngay wax te li nga wax nga di ko dégg yow ak ku ne ci sawet loolu ku sës ci yow déggul nit ñi mën nañoo bañ a ñu la xaw a solo tuuti mën nañ mën nañ ko bañ a dégg teew jaa ngi béral kon doone béral mooy rek wax ca kaw boo xam ne ñëpp dañuy dégg loolu mooy bu kawe bi mu fu mu yem moom ay bi gën a suufee mooy li nga wax yow da nga koy dégg loolu luñ sopp la ci naafila guddi gu ne uh-huh. ba tey yëpp dañoo sopp ñu di ko yellu yu yu ci dul yu ànd ak xutba waaye bu dee naafila bëccëg te ànd ak xutba it dañoo sopp ñu di ko béral uh-huh. comme julli ay di ak lu mel ne julli baaw naan yooyu bëgg lañ fay jàng ñu béral ko yeneen naafila ñu def nañ njëkk tisbaar ginnaaw tisbaar njëkk takkusaan wala julli yor yor yëpp muy naafile bëccëg la ba ci ñaar rakkee fajar ndax buñ xasee na dondog fajar bëccëg tàmbali na yooyu dañoo bëgg ñu di ko yelu ndax naafile bëccëg la te àndut ak xutba waaye bu jant bi xasee soo boo sëlmale timis dafa tàmbale naafile yi ngay def ba ba ñu nodd fajar loolu guddi la dañoo sopp ko ko yelu jërëjëf sëriñ bi euh, kii dafay laaj ne euh, lan mooy atte bi yéene ci jullik fajar mel ni la xaw waaw yéene moom ci lépp du ma wax julli waaye jëmmi lépp loo xam ne jaamu yàlla la mhm. yéene mënu caa ñàkk mhm. ndax yéene mooy xajjale ibada ak aada mhm. yéene mooy xajjale jaamu yàlla yi yi ci doon farata yi ci sunna yi ci nangam ci yéene la koy xajjale kon nit ki mooy buy julli eh, fajar day yéene ñaar rakkay fajar yi nga xam ne moo njëkk suba bu dee julli suba muy farata ji da koy yéene leen lu ci nekk nag lam ci yéen lañ ciy àtte jërëjëf euh, kii dafay laaj moom it ci ne lan mooy atteb lan mooy atteb ki nga xam ne euh, maanaam lu aju ci wàllu xutba wala euh, ci wàllu jigéen ci ci ci ci takk ab sëy ndax dafay am luñ luñ ci ràññale luñ ci war a def walla daal lan mooy dalil xutba maanaam xutba ab sëy la hmm. waaw xëy na xëy na ngoro la bëgg a wax. ngoro waaw. maanaam fekkee daa bëgg laaj euh, ban diir lay diire. Mhm. ngoro amul diir. Mhm. xëy na dana topp ngor fu ndax ngor dëgg dëgg mooy lam seen laat mhm. nit ki bëgg soxna dem gis soxna sa ndax yonentu ay salaam moo wax ne ku ci labat nit su ko mënee gis na ko gis ndax mu gis ci moom lu tax mu xamee ko gis gi it bu mu weesu xar kanam ak i tenq borom xam-xam nee ñu xar kanam mën na laa xamal taar bi tenq yi mën na laa wax rab yaram wel mhm. ñaar yooyu lañ mayee gis ci teewaayu it ay bokkam mhm. du ngeen beru ci ci ci làqutu fenn di ko def gisante mhm. loolu na bu amee mu yab dem mbaa mu yable gaaral ak bëggam jataay ba muy dem di di di wax ne daa bëgg ñu may ko soxna si jataay boobu mooy jataay yub labat jataay yub ngoro sopp nañ xutba fa sant yàlla julli ci yonent bi wax li tax mu bëgg mu bëgg mhm. sopp nañ it ki ki ki ki ki kiñ seet si di ko di ko ñaan si njabootam moom itam mu xut ba sant yàlla tontu mhm. tontu gi nag mën naa nongu mën naa doon gàddu lu ci nekk nekk su nongoo nag mooy yow digg nañ la li ngay ñaan kat lañ la ko léeg-léeg ñu ne la waaw dégg nañ li nga wax dañ la tontu diggante boobu nag xëy na fii wolof yi dañ ko tuddee diw mooy labat diw joxe na fa kàddoom di déglu ndax loolu it luñ soxla la ndax nit ki bu ñëwee di bëgg sa njaboot yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa waxoon ne bu leen nit dikkalee ngeen gërëm diineem gërëm jikkoom may leen ko soxla loolu nag dañ koy gëstu bu fekkee ne xamante jiitu wutoon wala xamoon ko foofu bu dikkee da nga gëstu ña nga xam ni xam nañ ko ne leen diw moom luñ biram moom kat daa bëgg dafay bëgg soxna ñu wax la lañ ca xam fu mel noonu la ngay wax ci moom du jëw boo xamee moom ne ku baax la wax ko boo ci moom ne ku soxor la ne ko ah, soxor soxna ñëw na ci islam ne ko diw dama bëgg ak diw mm-hmm. ne ko diw daa soxor bul sëy ak moom yonent bi wax loolu waaw sallallahu alayhi wa sallam dañooy saxaaba lañ mm-hmm. diw nag yorut dara mun laa yor mm-hmm. ci nekk ngànt la kay bu la takkee da nga da nga sonn ndax xëy na bu la bëggee yor it mun amul la yore kii nag dafa day day duma lu jafe la fii ndax léeg-léeg nga ñëw wax dara ci nit maanaam kooku moom jigéen nga daal lay jàppal mer moo xam ne daal waaw ah, xam nga fii moom xam-xam bu laluwul rek bari mm-hmm. dañu dañ koy firi neneen mm-hmm. donte fiq dañ lay wax sax ne lay mel noonu mën nga ne ko bu ne diw ne ko ah, ba ma ne seet keneen di mu gën mm-hmm. dañ ko caa wax dara ci ay di di di di faram-fàccee rek naa ngi lii ci nekk waaye daal sangu bi ne fi sallallahu alayhi moom lii ma lay wax wax na ko nit soxna ñëw na ni ko diw dama bëgg mu wax ko te ñoo ñëpp ci jullit ñi lañ bokkoon kon kenn ku ne sikkam boo xamee ne moom ne kii kat am na sikk soo xam ne bu ngeen àndee du gën ci baabu nasiha da ko war boobu nag seen blaat moo tudd ngoro waaye nag foofu nañ xam ne soxna si jàmbur la ci góor gi mm-hmm. fii nag dañu baax saa buñ ne nongul nañ ko ko rek ñu daal di jàpp ne ñoom ñaari way dañ la mm-hmm. ca waxtaan ya ca weet gi ca nangam nañ xam ne yooyu njuumte yu rëy rëy la mm-hmm. fii ak néewuñ fasal nañ la nga ne nangu naa amu ko soxna moo waaw loolu de moom mën naa lu mel ne dangay gis yenn dëkk yi maanaa ñu naan ay diw sàngam ak diw sàngam ànd nañ wala génn nañ lu ma at wala ñaari at mhm. te loolu bokkut ak li lislaam tudde ngoroom ngoroom sàkku la labat mooy wax sa aajo ñu tontu la nangul la mhm. digg la bu dig ba ak see ñu may la mhm. fii la ma eh, am na lu ñuy faral di wax seen blaat naa ko leeral fii danaa ko faral di wax sax mooy ñu bari dañuy wax loolu naa la dañoo bëgg génn nangam ndax ñu xamante ndax ñu mel mm-hmm. yooyu noonu dañuy wax nit rek gis nga sëñ Abdoulaye nit su la bëggee mm-hmm. lépp lu ne ci moom ci ay sikk ah dala koy nëbb mm-hmm. boo am li tey nit dana ànd ak at di wax ne dañuy seetante kenn ku ne day wëndeel morom kenn ku ne ci ñoom dana fexe ba saa bu di gis na bëggee mu gis ko ne rek noonu la koy gis lépp lu ay defo ci koy nëbb bu ñu fasee nag waaw bu ñu fasee nag ba caaxaan jeex fa war na kenn ku ne génn jikko moo tax yu mel noonu maa ngi dañ lay wax ne lu ñuy xamee nit bu doy sala wax na ko hmm. bu dee góor man taddaw na diina xu xuluqa jigéen waxoon na ne dañ ko takk ngir alal dañ ko takk ngir juddu dañ ko takk ngir taar dañ ko takk ngir diini hmm. tànnal ki am diini loolu nag man koo xamee ci nit ki fi mu bokk ay bokkam ñëpp ay magam bu dee jigéen man ngaa xam ñu ñii ay sëykat la mhm. yaayam fam fam fa mu sëyi woon kat fa la nekk bala yàlla dogal ci wàllum dogal mhm. ay magam yi ku mën sa sëyi nagam nag rafetal njort ci ne kooku it ni ñoom lay mel góor gu it noonu ñu ah fa mu dëkk day ña fa nekk ay magam yëpp day yorkati sox yorkati soxna la mhm. ku yor dañ la teral dañ la fonk dañ la sutural nga ne ah, kon ñun ñu baax la waaye bëgg ne nañ nañu ànd ba miinante kenn ku ne xam sa morom ñaar ñu naxante lañ rek loolu ndax ay jàmbur lañ bu feek fasuñ ko jàmbur lañ waruñoo wéet waruñoo wax wax yoo xam ne ñaari way denc nañu ko war a waxtaane uh-huh. jërëjëf sëriñ bi kii laaj mu ne ndax yére bi nga xam ne maanaa uh, dañ koo setale ci lu dul sobe maanaa uh, ñu dem ba mu yàgg ñu ñu raxase ko ci ndox moo xam ne uh, dañ caa raxasoon sobe ndax ndox mooma ñu ñu dana mën a setal yére boobu nga xam ne moom la moom la sol waaw xam nga bu dee ci fóot ay yére yu taq sobe dañ cey sart pootit ma maa kañ lañuy xam ne mu mi laab na su potit mi demee ba xeeñitu sobe nóorootul sobe safatu sobe kon saa boo dee potit ndox ma ko mujj dugal bi nga ko génnee ndox mi so sobe xeeñitu safu ko yorul melaw yi boobaa jàppal mu mi laab na fii nag mu ngi am benn ci yooyu meneen boobu moo ci dugal xamal ne walla na ko sobe ndax bu xasee tooy lu tooy loo ci dugal da koy dugg mhm. kon boobu ma daa jar laabalaat mhm. moo tax sax gis mag ñi ni doon def saa bu ñuy fóot lu am sobe dañ koy ber xaj ko ba dindi sobe si ba noppi mhm. xam ne jëm mi sobe si dañ na xokkumu nag al xokkum moom du tuxu masalan tey mbubb mi takk sobe ko fóota sax ba mu set jëmmi sobe si dañ na waaye mbubb mi laa gudde waaye ñàkk laa ba munu ko wàll keneen ndax jëmmi sobe nekkatu moo tax lu mel noonu buñ ko dee fu ñu bëggee boole ay yére yu laab ak yu laabut yu mel ni póot mm-hmm. yére yi am sobe nañu wut saabu ber ko fóot ko ba mu set mm-hmm. ba jëmm ja dañ léegi nag mu des atte bi atte boobu nag moom boo ko fóotee ak ba noppi da koy dugal ci ndox mu mut lax mut taxu ci waaw ko ci dugalee benn yoon mu daal di génn laab macha allah mm-hmm. jërëjëf euh, kii dafay laaj mu ne euh, euh, daana dagan ci ki nga xam ne dafa ànd ak soxnaam ñuy nekk waaye day def rek saa suy waxtaan ak eh, xaritam yi wala ñeneen daan leen man de danaa wàcc sama soxna danaa wàcc sama soxna danaa faj sama ndax loolu dana doon luy bi wala de waaw xam nga dinaa wàcc moom lu mu digge la. Hmm. lu muy digge la ab nag benn nga wax dëgg wala nga wax ginnaaw dëgg. Hmm. moom su ne dinaa wàcc te wëccut. Hmm. Eh, la mu wax wérut daa wax lu wérut rek loolu nag bàkkaar la. ndax bokk na ci yi ñuy xamee am naa feq daa waada axlaf saa bu diggee la mu diggee du ko def bi ci des it nag ab sëy doonul lu woyof bañ di ko fayee noonu tax xam nga ci naar yi bokk na ci li ñu daan giñee fase ma fase sama soxna du ma def nangam su ma defee nangam sama soxna tas dafa bokk yi tere nga xam ne su koy def rek parce que may tàbbi nga xam ne moo tax koy giñee ci ñuy tere mhm. donte euh, sax àgg nañ am ñoo xam ne dafa araam ñu wax ne dafa xaraam mhm. euh, sëriñ maa koy juñ ci aljawharu nafis Euh, loolu day wane ne jëmmi ab sëy dafa dafa dafa rëy fa yàlla mii faaqan xaliisa la ko borom bi tudde mhm. loolu wari su ko sàggane bay def saabu saabu amee rek nga ne ma fase soxna wala bu nanga amee fase sama soxna mhm. eh, caaxaan jëmu ci mhm. eh, luñ fas ci turu yàlla la kon dañ ko war a fonk rawatina yi nga xam ne ni da koy def sax ba noppi dox tuuti ci tàmbalee rëccoog lay waxtu ne ngay dégg koo xam ne la na soxna waaye mu koy fase daa meeroon daa nangam daa nangam te loolu kaf jëmu ci lay tax ñu ne la maanaam fas mi duggut nga àgg ci mer foo xam ne yàgg doo fi yéen a yem waaye fii yaa ngi ànd li nga wax nga di ko xam boo fasee tas mm-hmm. waaye di mat bàyyi xel mm-hmm. jërëjëf kii day laaj mu ne ndax dana lan mooy atteb ki nga xam ne dafay jàng alquran waaye su nit ñëwee wax ak moom di wax ak moom wala muy sàkk ci moom dara day dog njàng bi ndax loolu dagan na wala déet waaw loolu de borom xam-xam dañ koo sib ndax wax yàlla moom dafa diis moo tax nit ki sax bu ko jàng toog beru foo xam nii waru koo dagg ci lu dul farata farata na mooy way juróom di wax ak moom war wuy moom wala nit ko fay nuyoo farata boobaa nag jàmmante moom boobu ca hmm. fay nuyoo mooy waaleykum salaam wa rahmatullah wéy ci la nga nekkoon hmm. eh, ci yu mel noonu dal lañ ko sañ a daggee wala ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu yu mel noonu nga nga nga dégg ak noddu hmm. fekk yaa ngi jàngal xuraan ndax yiwuy faat la nga nekkoon naa taxawal njàng mi te nettali noddu gi ndax dañoo bëgg am noddukat buy noddu mhm. li muy wax nga di ko wax mhm. léegi foofu it mën ngaa taxaw nettali li muy noddu bu noppee nga ñaan ñaan gi santaane ci sam njàng mhm. maanaam bu dee waxtaani soxla adduna yi moom bu dul sa wajur bu dul su waxee yow boo ko nee tontu ci liyaar te loolu du jur lor dañuy bëgg nga def loolu wéy sam njàng moom it mu xam ne li nga nekk lu ñor la ñaare sax nit ñi xam nañ loolu buñ la fekkee nga jàng moom dañ naan ah maa ngi jégal kër kon boo noppee nu yóbbu ak moom waaye fay fayu nuyoo bi nag farata moom kuy kuy yor kurus ak yor kaamil ci yam bu leen ne asalaamaaleykum da nga ko war a wax waaleykum salaam. incha allah jërëjëf sëriñ bi xam naa ne li mooy doon suñu laaj bu mujj ndax waxtu wi jot na kii dafay laaj mu ne eh, ndax eh, naka la ñuy séddalee den dafa bëgg nga miraasal ko koo xam ne daal dafa faatu bàyyi fi doom ak mbokk ak ay mbokk yoo xam ne eh, mbokk yi bokkam la ak bàyyi ak ñaari mbokk yoo xam ne dañoo bokk ak baayam ndey ak baay ñun nan la ñuy séddalee alal waaw suñu bilaat xam nga ci miraas moom li mat di fàttali nit ñi mooy yëfi yàlla la yoo xam ne borom bi yonentu islam nee na kenn doy ci yàlla ko séddale boppam ku bàyyi loolu nun wax mhm. alal jëpp lay jël dox doom ji mhm. doom bu fi xasee nekk menn mbokk dootul doon bu doom ju ju góor bu xasee am ibnu la wax sax doom ju la wax sax bu xasee am mhm. mbokk mu mbokk ak néew bi ndey ak baay wala ñu bokk baay wala ñu bokk ndey muy góor muy jigéen ñoo ci am mbokk dootul doon bu ñuy wax mbokk muy doon moom mooy fekk ki faatu amul doom ju góor mm-hmm. waaye bu xasee am doom ju góor moom ñoom bokkatuñ ci miraas bi kon ku mel noonu bu faatoo alal ji bari bari jërul xaaj lépp jox doom ju góor ji bu dee kenn moo ko moom buñ dee mbooloo ñu séddoo ko ci digg ba buñ dee góor ak jigéen ñu séddoo ko góor ñaar jigéen benn jërëjëf eh, jasaakallahu xayran kon xam naa ñu jox la nga tàggatoo ak ay jërëjëf sëñ Abdoulaye xanaa dellu di sant mbokk yi doon teewlu jotaay bi rek ñaan yàlla defal ñu dégg ak jariñu ci jariñ jariñ ñu ndax diine it nii la waaye xamul rek da ko war a laaj ndax yàlla kenn du ko làmbatu ci jàmm bañ ko ko làmb moo tax mu tànn yonent jox leen téere yebal leen ci nit kon nag ñu ngi leen di sant yéen itam yéen ñi dimbale jullit ñi ngir ñu mën a eh, taxaw ci seen diine yàlla ñu yàlla boole dimbale asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahman ñu ngi lay ñaanal bu baax suñu borom gën la kattanal te wéral la te gën a yaatal sa xam-xam ñu ngi sant it mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp jëpp ci seen seen CMT wala MKTV di sant mbokk yi nga xam ne ñooy réaliser émission bi di sëñ Abdou Khadir Bousso ak euh, Mouhamed Ngom sëriñ Baye sëriñ Bousso waaye di di fàttali mbokk yi képp koo xam ne am nga laaju diine booy laaj mën nga ko envoyé ci numéro bi 77 531 91 98 ñu ngi gërëm tamit sëriñ Abdoulahi Lo mi nga xam ne mooy dajale laaj yi di leen jox di leen dig daje incha allah ci seen beneen émission gàggantiku asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam